حبيبي رسول الله وهو المتيم مدى الدهر فيه قاطري يتجمجم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu fi dajale ci daje boo xam ne daje jàmm la la boo xam ne itam bu ñu baaxoo di ko def la at mu jot fii ci Kaarang ci njiital suñu sëriñ Baye Nooru Tiin mu di ko taxawee fii ci Kaarang daje boobu nag lépp jàmm rek la e, daje la boo xam ne li ko waral mooy dundal islaam daje ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy xalqi xayru xalqilaahi mu gën ci mboolem mbindeefi yàlla yi yàlla sellal ko ci ay mbiram ba wax ko ci alquran fi ko yàlla njëkka a sellalee mooy sellal na ko ci xelam ndax ne na ko ma dalla saahibakum wa ma xawa sellal na ko itam ci bëtam wax na ci alquran ne ma shaqal basharu wa ma taqa waaye sellal na ko ci xolam wax na it ne maa kasabal fu aadu ma yàlla sellal na yonent bi itam ci dënam ne alam nashara laka sadrak yàlla del na ko sellal ci aw turam ne ne wa rafarna laka shikrak yàlla sellal yonent bi ci ak dëggum ne wa ma yantiqu anil hawa sellal ko ci bëri yërmandeem sellal ko ci ak lewetam ne bil muminina raufun rahim mu sellal ko ci lépp nag mooy wa innaka la ala xuluqil hasim daje bi dara la mooy màggal kooku nga xam ne ku jara màggal la yàlla takkal ko garaat moom yonent bi garaat yu yaatu yaatu waaye ba ci gën a rëy mooy fi mu waxee moom yàlla ne moom mu ngi julli ci yonent bi moom ak ay malaakaam yéen ñi gëm yàlla it jundu leen ci moom bu ko defee nag sëriñ bi bàyyi nooru saxal fii gàmmoo goo xam ne at mu jot dana ko def fii ci kaaram dajale fi mbokk jullit yi ñu dajee ci ngir yàlla jàng fi alquran siyaara wante ñaan lante wante lépp mu di ko defal ci alalam te defewut ko dara ngir bëgg yonent yàlla mu sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg diine islaam ngir bëgg itam kañtu ci kutwaat yi nga xam ne jéego yi nga xam ne ci la ay baayam ak maamam doon def bu ko defee nag loola waa Karang jàppale ko ci ndax jàppale ko ci moo leen war muy indi itam koo xam ne doomi cheikh al islam la alaaji Ibrahima ñes muy cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim mu ñëw taxawee ko te yonent bi noon na yàlla na yàlla wu yërëm ñi ma wutu ñu ne ko ñan ñoo la wutu mu ne mooy borom xam-xam yi mu ne siyaare ant boroom xam-xam wala nga xool boroom xam-xam ngëneel gu rëy moo ca nekk. kon jotaay la boo xam ne bu màgg fa yàlla la ñu ngi sant yàlla itam bi nga xam ne teewale nañu ko sëriñ bi samp fi jëf yu màgg a màgg màgg yoo xam ne mu ngi ko bëgg a jeexital ci ci dëkk bi ngir liggéeyal islaam te islaam rek mu jëra liggéeyal bokk na ci jumaa ju mag ji nga xam ne ñu ngi ko samp fii bokk na ci daara alquran bokk na ci yeneen yeneen yoo xam ne yi mu ngi ko nal ci dëkk bi te loolu yëpp defewut ko dara ngir liggéeyal yàlla ak yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi loolu ñu ngi ñaan yàlla mu saxal ko gàmmoo la xam ne daal yàgg na defoon nañ ko at yu bëree bëri moom moo del siwaat kon ñu ngi sant yàlla moo xam ne moo ñu ko fekkale di ñaan yàlla daal mu lu ñu fi sëriñ bi bàyyi ko kàddan bàyyee ko wéram bàyyee ko sagom bañ yàgg ci ronom mu yàgg di teewe gàmmo gi gàmmo gu yaatu la gan ñaa ngi bàyyee ko ci mbooleem àddina bi ci mboolem réew mi ci mboolem dëkk bi ñëpp pour mëbb pour fekkee si gàmmo képp ku nekk ci yoon yàlla na yàlla indi la di jàmm képp ku ñëwit yàlla nga dellu ci jàmm ñu ngi ñaan itam réew mi di Sénégal yàlla def fi jàmm ndax jotaay yi rek mooy yi nga xam ne moo taawu réew mi ci saahir ak i baatin jotaay yooyu yàlla na ko yàlla gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah ahousubillahi samil alim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim malik yawmi din summa salaatu wasalaamu al atyabaani al atamaani ala sayid al abd saaxibu liwaai alhamdi walmaqaami almahmud man ursila rahmatan lil alamin sayidna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Euh, ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy ci vidéo bi di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla ci ndigalu sëriñ bi sayidi wa mawlaaya Cheikh Ibrahim Nuruddin Cheikh Ibrahim Niass toog ak rakam Cheikh Abdullahi Cheikh Moustapha <laughs> Mouhamad Nuruddin Niass ñoom ñi ngi teew ak imaam euh, Cissé nga xam ne fii ci Kaarang ñëpp xam nañ ko moo doon wax léegi ngeen koy dégg ci vidéo bi muy jàllale ay kàddu yu am solo toog ak tam suñu mag suñu magi daara suñu mag ci buntu Cheikh Mouhamad Nazir muy euh, sëñ saako mi nga xam ni ku sëriñ bi gërëm la ci mbooloom yëngatoom ak dalam nii la mu samel maanaam sëriñ bi la mu di àndal fu ne di sof suñu kàddu rek ci kàddu imaam de imaam ubbi naa jotaay bi wax li ci am solo sax daanaka dafa mënut a ñàkk la dañuy wax ne la loo def daaw mu jig la boo ñëwaatee nañ ko baaxantal kon dañuy baaxantal rek di ñaan ndigal imaam ci ndigalu sëriñ bi pour wax rek ne kaarang ñoom la yàlla séddee tey bés bii muy bés bés la ci bésu fayda bi bésu Cheikh Ibrahim Niass waajur bu mag ba waajur bu baax bi moo fi daan jaar su jógewaat nee ma jaar fii daat fii gàmmu Cheikh Mouhamad Nazir nga xam ne moo njaboote ñëpp ah Kaarang ubbil ko buntam te li ñuy wax ne nit ki su dee li ngay wax dëgg la dëgg day sax ci nit di nit day deewaale dëgg kon bi doom ñëwee ne la la fi suma bàyyi bàyyi woon anamu waa Kaarang dañ ne ko li li fi sa bàyyi bàyyi woon a ngi nii te loolu mooy indi moo indi jotaay bii waat te bàyyam bàyyi fi lu dul mbokk yi kaaleen ñu ànd jaamu yàlla mbokk yi kaaleen ñu ànd bëgg yonent yàlla Muhammad mbokk yi kaaleen kaaleen ñu ànd ci bunta Baay Ñas nga xam ne moom waxam ñëpp xam nañ ko moo wax ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu wañ xalat yow man fa masiru baidu moo wax ne man yonent bi salaa sallam ni mel ak moom mooy fu mu teg tànkam rek bu tegee ma teg te tam ëppul manqué wul maanaam sunna yonent bi la ci bëgg a jublu dundam gi yëpp ci bi la salaa sallam ba ñu tuddee ko waarisu sirri nee na man noonu laa mel ci yonent bi mu dem ba nga xam ne sallallahu alayhi wa euh, mu ne loolu yëpp nag su ma ko melee mu tourné waat delloowaat encore dégg nga njukkal sama askan ak ak mbooloom kuy doomu aadama man bayti bi daf may daf may frappé mooy fi muy wax ne wal ummatu fii mu an asuqahum ila hadrati bari raufi ilahina dafa garaaw bàyyi dafa wax ni ànd ak li ma am ci yonent bi yëpp nag lenn mooy sama mbébét ci xeet bi yëpp mooy mbébét bi yonente bi salaa sam amoon rek mooy màngale rek dugal leen ci pays yàlla bi ñoom ñëpp ñu mucc kon nag ci biir màng googu jotaay bii daf cee bokk mu mel ni képp ku wuy si jotaay bi da nga fay maanaam da nangu si danga ñëw nangu si li li Cheikh Ibrahima Niass di woote nga xam ne mooy buntab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy jotaay bi ah kon su ma tënkee sama kàddu foofu damay dellu rek di wax ne dañuy jox micro bi suñu euh, kilifa suñu sëriñ Cheikh Moustapha waaw mu jàlle ay kàddu ba pare ñu door a jox sëriñ bi mooy te jotaay bi incha allah ndax kon Cheikh Moustapha kon bismillah fal tafadal mashkuran waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mi ngi nuyu ñëpp di leen ziare incha allah. nee na mi ngi gërëm ñépp nee na mi ngi gërëm magam bu baax di Cheikh Ibrahim Baye Nouruddin sama mag bu baax la. nee na magam bu baax la. Hmm. nee na mag la joo xam ne daf leen a taxaw. nee na ku leen bëgg la. te nee na moom xam na ne moom ñoom ñoo ko raw daal ci mbëggeel boobu. nee na Cheikh Moustapha nee na sëriñ bi mu ngi lay ñaanal. sumb bi rek. nee lépp loo sumb ci xadara bi. Ah, yàlla defal la ko ci def ko ci nu mu gën a ci nu mu gënee baaxee incha allah te barkeel ko. nee na mu ngi koy ñaan ci barke Baye Cheikh Mouhamad Nouruddin di doomu Baye. nee na amul benn sikki sàkk ne. nee na Nourou Mouhamad Nouruddin ci boppam. bàyyi la ñëpp. nee na doomu bàyyi la comme ñëpp. am na cër comme ñëpp. nee na am na cër comme ñëpp. kenn sutu ko. nee na kenn sutu ko. dëgg la nee na moom xam na ci dara. Eh, nit xam nañ ci dara. nee na nit ñi xam nañ ci dara. doomi Baye mi xam nañ mu ne doomi Cheikh Ibrahima Niass yëpp xam nañ ci dara. waaw ah, yàllaa ko teel a yóbbu rek. nee na yàllaa ko teel a jël rek. waaw ah, waaye waaye loolu yëpp. loolu yëpp nag. nee dana feeñ. gannaaw bàyyi na fi doom nee na bàyyi ginnaaw bàyyi na fi ay doom rek. lépp dana feeñ. yëpp yàlla dina barkeel njaboot gi ci ginnaawam ba ñëpp xam ne euh, Cheikh Nourouddine liggéeyal na Cheikh Ibrahima Niass. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi leen ziare di leen gërëm yéen ñëpp. di leen wàccee seen wàccuwaay. Euh, njaboot gi ñun ñëpp ñëpp njaboot njaboot lañu njaboot gi lañ bokk. parce que ki nga xam ne ki nga xam ne mooy mooy mooy suñ sëriñ daf ñoo boole woon ñu ñëpp ñu nekk benn njaboot xàmmeewut comme jur ak kum jur mus ñoo mus ñoo séparé ak njabootam loolu lañ miin loolu lañ xam ba ñu nekk si loxoom ay xale yu ndaw lañ mu jàpp ñu jàpp ñu comme suñu bàyyi bu fi nekkoon ñu koy mu ñu jàppee ñu ñuy téye loolu tam loolu tax ñun tam loolu lañ miin loolu lañ xam ñu topp njaboot gi ànd ak njaboot gi mel ni seen bàyyi lañ àndal ba tey waaw loolu lañ loolu laa gis man man maa ngi jàpp ne ba tey Cheikh Nazir rek la àndal moom moom la àndal ba léegi parce que fi mu ma jaarale wax dëgg yàlla euh, sa gannaaw sa gannaaw sa bàyyi sa bàyyi euh, moomu téye la téye la téye la téye la téye la ba nga ba nga mel ne ñëpp alhamdulilah rabbil alamin maa ngi leen gërëm maa ngi sant Cheikh Nazir daal ah, njabootam daal kenn mënu ko xamee ak taalibe yi naka jekk ñun loolu lañ xam si moom moom lañ miin ba léegi nag di ànd ak ñoom ba léegi alhamdulilah rabbil alamin ñii maa ngi leen gërëm di leen sant parce que ñoom itam bët yi ma seen bàyyi daan xool bët yooyu lañ may xool moo tax man itam ma leen di xool bët yi may xool seen bàyyi moo tax ànd bi yàlla rek la si yàlla yàlla rek la bëggante si yàlla yi gën a bees rek ñu ñaan yàlla lépp luñ sémbu yal na ko yàlla eggil seen loxo yi yal na ko yàlla gën a yaatal yal na ko yàlla gën a kaweel lépp semb boobu boo xam ne seen nasir sembo na ko Cheikh Mahamad Nooru bëggoon na ko semb mm. ñoom ñëpp yàlla na yàlla feeñal ko seen njaboot yi ba bañ bañ gis ko ba ñëpp gis ko mm. ànd ak ngërëmal yàlla barke yonent bi barke Cheikh Abdoulaye barke Cheikh na defe naa kàddu gi gën dina leer mooy li ma doon wax rek li nekk ci li nekk ci ndab ndab li ci nekk rek loolu loolu loolu kese lañ ci mën a tànqee mooy lii moo nekk ci xolam te moom lay dund kon dañuy toxal kàddu gi rek jox ko sëriñ bi incha allah mu waxtaan ak mbokk euh, ñi nga xam ne ñooy mbokk taalibe yi ak tam ñi nga xam ne rek ñooy soppe yi fu ñu munti nekk ñu teewlu ay kàddoom kon bisimilah Cheikh Ibrahim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin wa imaamil muttaqin wa qaa'idi ghurril muhajirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran alhamdulilah ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyu di islaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ndokkeel beneen yoon ci xew-xew bu màgg bi di xew-xew màggal yonentu salallahu alayhi wa sallam di taataan ci bés bi ay xewal ay yokkute ci bépp anam di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal loolu ci barke yonent yàlla sallallahu wa sallam ñi gërëm mbokk yëpp di gërëm waa Kaarang yi kilifa dëkk bi ak ñëpp ci taxaw biñ taxaw ci bés bi imaam yi ak kilifa yi nekk ci poste yeeg yëpp jigéen ñee góor ñi mag ak ndaw kenn desut ñëpp jàpp nañ ci bés bi ñu ñaan yàlla yal na yàlla fayante ñoom di gërëm sama mbokk ñi xam ne dañoo jóge ci Medina ñi njaboot Cheikh Mouhamed Nourdin ak njaboot Cheikh Mouhamed Nazir ak Seyda Mamet yi bàyyi ko nañ ba te dara warul lu dee fekkee bés bi ñu ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla fayante ñoom parce que nii nit waa rek nit ki amul du bésam ñu la sa bés rek xam nga am na fu fu kawe fuñ la teg ñaan yàlla yàlla na yàlla fayante yow di leen gërëm ñeen tamit ñeen jógee fu barab fasantiku Dakar Gambie Medina Baye Neema kenn desut daal bi ma limee daal naa du ma matal te lool dara warulu ko lu du bés bi rek moom moo leen tax a jóg di am kontaante bu baax di gërëm caméraman bi wax dëgg yàlla at bu nekk moom mooy ñëw couvrir jataay yeeg ci suba si ba ci démb sa xadara bi ñu def mu ko jël ñun ñaan yàlla li mu moo ko xam yàlla na ko yàlla defal di gërëm imaam yëpp di gërëm kilifa yi fi nekk yëpp ñuy kàdd yi mënta jug gudd di am kontaan bu baax di gërëm jigéen ñi nga xamante ñoom tamit ñu ngi eh, nekk ci wàññi ak ci organisé yi ak eh, comité bi nga xam ne ñoom ñoo ànd di liggéey muy jamiyatul wahda tadaamun wal amal xam ne bés bi jàpp nañ ci bu baax ñu ñaan yàlla yàlla na yàlla fayante ñoom di wax ne kontaan nañ trop kontaan nañ trop bés yonent bi nag sallallahu alayhi ay xewal yu bari miñ ci ay xewal yu bari miñ ci suñ dajewoon rek du koy tudd wërsëg rek loolu yàlla rek xam yiw yi ci nekk sant nañ yàlla yàlla moo ñu baaxee ay mag yu baax ñu sunna sunna bi nga xamante ni tey foo dem ci biir Sénégal samedi wala dimanche wala yëpp daanaka ay ay xeexoo ci diina la te gàmmu lañ ko tuddee te lu waru ko lu du màggat juddu yonente sallallahu alayhi wa te loolu moom moo téye Sénégal ba léegi looloo téye Sénégal te ñu ñaan yàlla loolu yàlla bu ko dara dindi feebar bii nag nga xamante ni moo jaaxal aalam yépp feebar bi mbindeef la ci mbindeef yàlla yi rek yàlla ko wàcce ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla téye waaw nañ wàkkilu ci yàlla nañ delloo suñ bopp ci yàlla nga xam ne yàlla rek kaja delloo ni ñu wax ci min de xasbunallah wa ni'mal wakil wala xawla wala quwata illa billahi al ali al azim ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di la wax ne kullu amin wa antum bi alfi xeyr aadawallah alayna bi yumni wal baraka ma sixa wassalaam wal qabul wal iqbal di am kontante bu baax di wax na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wax dëgg yàlla taxaw ngeen ma muy ñëwee Kaarang ba léegi ñu ngi bugg a yàgg ren mooy suñ fukki at ak benn ñu ngi def programme te saa yu organisé yu mel nii rek dañ leen gis yéen ñëpp ngeen taxaw sama wet jàppale ma taxaw ma ba xew-xew bi jàll ci jàmm ñëpp kontaan ñi ñaan yàlla na at bi yàlla bu mu doon suñ at bu mujj yàlla nañ koy def ay ati ati at te lépp luñ mbébét fii yàlla nañ ko yàlla may. ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit yi amul lu du ñaan <clears throat> te yàlla te yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ud'ullaaha wa antum antum muuqinuuna bid-du'aa waaw na ñaan te na am yaqin na yàlla dana nangu ñaan bi amul sikk na ñun am nañ yaqin ci li ñaan ne suñ ko ñaanee yàlla danañu ko danañu ko may waaw yàlla lim ame yëpp dayu ko dara lu du jaamam yi rek waaw nañ delloo suñ bopp ci yàlla rek waaw di wax na jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala li may yokk rek mooy na ñu ngi ñaaw suñu waajur Cheikh Mouhamadul Makki nga xam ne wax dëgg yàlla ñu commencé taxaw programme ba léegi moom moo ñëw di ñuy gunge di ñuy taxaw ñaaw ñaaw ko yàlla yàlla na ko yàlla may wér yàlla may ko kattan ba fépp foo xam ne bëgg na faa diine lislaam yàlla may ko kàttan ba loolu ki naa dañuy kéréwaan waajuram ñaanal na ko ba pare tere terewoon na dañuy ñaan rek di gërëm tamit samay mag yëpp samay mbokk yëpp nga xam ne comme ni ma ko waxee ci njëlbeen rek ñu bàyyi ko fu nekk njaboot Cheikh Mouhamad Nazir njaboot Cheikh Mouhamad Nourdin ak Seyda Mohamed yi bàyyi ko nañ ba Mauritanie ñu ngi sant yàlla bu baax Cheikh Baye Hadi tamit mi ngi mi ngi mi may woo ne mi ngi ñëw ak yeneen mbokk te dara waru ko du ñëw ci bés bi rek bokk ko ñun ñu ñaan de yàlla daal lépp luñ fi ñaan tey ci bés bi te am sikk sàkk ne luñ fi ñaan rek yàlla dana ko nangu waaw luñ fi ñaan moom am naa yaqiin na yàlla daf koy nangu wa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa la

la la la la di santaat yàlla ci kàddu yi nga xam ne moom lañ fi dégg yàlla na doon fasatu xeer ci ñëpp incha allah kon balaa sëriñ bi ngay jël dafa am délégation bu bàyyeekoo dakaar ginnaaw ndax dañoo dañoo xaw a denc tuuti parrain yi teew nañ teew nañ ñëpp teew nañ macha allah mais dañuy présenter rek quelques délégations bu sëriñ bi ñëw ndax euh, ñi nga xam ne ñoo association des sëriñ daara bu Kaarang ñi ngi fi teew ci tuddee gu leen tuddee bés bi ndax ñu ñu ko tuddee se euh, oustaz euh, Cheikh euh, Mouhamed amin Diouf moom lañ tuddee bis bi waa association de daara ñi nekk Kaarang yëpp ñu ngi fi mu ngi nii toog ay borom xam-xam lañ ay nit lañ yoo xam ne ci ñoom la yàlla rus lu bëree bëri bëri kon ay doomi daara rek a fi toog nag kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu sëriñ bi ñëwee incha allah présentation bi kaddu gi yëpp dina jóg incha allah kon ñu ngi dellu di présenter délégation bi nga xam ne suñu euh, papa Ibou Thiam moo ko jiite ak euh, suñu papa Ibou Diallo bu na teew na ñii mos ñoo ñàkk teew ci bés bi yàlla na yàlla yàggale suñu kanam waaw dañu jogee ba Dakar dagg ite yëpp ñoo fekke si bés bi euh, ak tam Baye Thiam mi nga xam ni moom it desul ginnaaw saa su nekk mooy ñëw di teewal. di teew ci délégation boobu doon tam kenn ci soppe sëriñ bi kon ñoom ñëpp teew nañ gis nañ leen ak wafdu bi jógee Mauritanie ak euh, ñi jógee Gambie incha allah ñoo ñëpp danañ ci jaar incha allah ci kanam tuuti kon Oustaz Tamsir ñu jox la kàddu gi nga dugg ci conférence bi kon bismillah min alsheytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi arrahmaani irrahimi maliki yawmi ddiini iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraata almustaqima siraata alladina ancamta calayhim gayri almaghdubi calayhim wala ddaalliin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq naasiri alxaqi bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiya allahu an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la xawla wa la quwwata illa billahi alaliyi alazim yaa himmata alcheikh ixduri lana bi hada almaxdari waltaatifi binazratin taati lana bizafari subhaanaka laa cilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alxakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbana aatina min ladunka rahmatan wa hayyi min amrina rachada mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi fas suñu jataay bi di ko tàmbalee ci buur di ko sant di ko sellal di ko màggal moom mi sax di dotti ci ñun ay xéewal ci zaahir ak ci baatin di julli ci yonant bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy hamzatul wasli suñu diggante ak may yooyu ak xéewal yooyu di ko seddale comme nim ko waxe cheikh ibrahim mu ne fa nachatuhu kanziyatu lxaqi waxdahu lidaaka ataana qaasiman wa muqassama mu ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallama mooy bi jógee ci kanziyatu suñ boroom bi moo tax mu ñëw di kuy seddale waaye di li seddale itam wax la joo xam ne dafa laaj dégg waaye yaakaar naa ne leer na comme niñ ko déggee noonu ndax misdaaqun li xadiisin saxiix ñuy ñaanal sang boobu di tëbb ci moom di ñaanal ay saxaabaam ak i ñoñam di ñaanal mbooleemi toppam ba pencam yàlla tey ñaan yàlla ñu bokk ci toppam yooyu gannaaw loolu maa ngi nuyu di ziyaara di tatagal di wàccee ku mag wàccuwaay bi ko suñ borom wàccee suñu biir mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Najli Cheikh Mouhamed Ibrahim ñas mi xam ne moo toog suñu wet tey wane ne tey mooy démb rek bu ñu jaaree ci aaya bi yàlla wax ne alladina aamanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim zurriyatahum wa ma alatnaahum ñu xam ne haada shiblu min tey mooy démb kii toog suñu biir di cheikh ibrahim mu cheikh muhammad nazir te teew ko mu dëggu ci suñ yëg-yëg moo dina mooy Maulana Cheikh Mouhamad Nazir te bu dee mooy Maulana Cheikh Mouhamad Nazir kon moom mooy Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wa halumma jarran ndax alquran moo ne doom yi nga xam ne dañoo aw seen yooni baay di lee seen jëf eggut fa seen jëfi baay yi eggoon yàlla dina leen eegal ci maqaamaay seeni wayjur loo xam nag ci ko fa baayam tegoo kam ci xam-xam ci yar ci uuf njaboot gi nga xam ne nii moom la ko yàlla nattoo mu nekk seen kanam nekk di seen bopp ñu di ko ñaanal yan yan boobu yal na ko ko yàlla yenul yal na ko yàlla yàggal suñu kanam te mu ànd ak wér ànd ak tal su ma ko nuyoo noonu rek nuyu naa rakkam xaritam di suñ xarit ñun ñëpp muy Mawlana Cheikh Ibrahim Najlu Cheikh Nuruddin Ibrahim nga xam ne tey ci moom la yàlla jaarale toogaay bu rafet bii ci itteem ci fuuglu yooni baayam yi moom itam mu doon ko xam ne dañu koy ndokkeel toujours man duma ko wax lu mel ni dama koy tagg du ma wax ko lu mel ni dama koy présenter nit ñi waaye su ma wax ci moom toujours mooy ndokkeel ko ci jéego yi nga xam ne moom lay seq jëm ci yoon wi nga xam ne moom la ay waajuram rëddoon ma di ko ci ndokkeel di ko ci ñaanal dawaama tawfiqi wa sadaad di nuyu mbooleem kilifa yi toog ci jataay bi ni ko Cheikh Habib tuddee def ma uutu ci tuddu ñiñ waroon a tudd yëpp mbooloo mi maa ngi leen di wax ne tudd naa ñi Habib tudd ñëpp ni leen Habib présenté wax yi mu wax ci ñoom munuma sax wax lu jotale noonu maa ngi teewlu ñëpp ci suma xol ñii maa ngi leen jan maa ngi janoog ñoom ñii maa ngi leen won sax gannaaw ñëpp doon taari jataay bi ñëpp doon ay éléments yoo xam ne dina riichal talaaqux bi nga xam ne moom la Cheikh Habib doon junj parce que al liqaau liqaax liqaaul arwaax su jëmm yi dajee rek ruux yi dañuy tëbbante dañuy wàllante ay mbóot Cheikh Ibrahim mu ne wa qad tafuuzu minhu bil adwa wa hi thaabitatun inda mu ne soo taqoo ñu baax ñi man ngaa dem ba yàlla baaxee la nga nga nga ñu wàll la ci seen mbaax gi ak seen mbóot yi mu ne te wàllaate boobu ci ay mboot ak mbaax ak i leer lu sax la ci góori yàlla yi te loolu ku ko bugg a xam dangay dellu ci xadiisu Hanzala bi mu tooge seetlu ne jataayam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wuuteeg jataayam bu génnee ci jotaayu yonant bi sallallahu alayhi wa mu yëg ne loolu daal nekkut li gën mu jaar ci sayduna abi bakrin di ko tawat mu ne ko bu dee looloo dal moom mooma dal man itam waaye nañ dem ci ki ñuy gàgganti ko ñun ñëpp te mooy yonant bi ba laaj ko suñ xaal biñ demee ne ko dañoo seetlu ne suñ nekkee ci sa jataay nga di ñu fàttali yàlla ak bés ak aljanna ak safara dafay mel ni ñu ngi janoog moom ba dañuy fàtte àddina fàtte suñ boppu fàtte suñ alal ak suñ njaboot waaye buñ tàggoog yow delluwaat ci suñ kër yi rek saafonteeg doom yeeg njaboot gi rek mel ni ñu ngi dundaat beneen xaal bu bokkut ak biñ nekkee woon sa kanam yonent bi ne leen law dumtum ala ma takunuuna alayhi ma'i wa ma'a dikri la saafahatkum almalaikatu ala furush fi turuqaati wa ala furushikum walakin yaa xanzalata saatan fa saa ne leen su ngeen doon continuer di amee xaal bi ngeen di amee suma keppaar ci seen kër yi léegi tey malaayika yi wàcc di saafonteeg yéen ci mbedd yi ak ci seen kaw lali yi waaye nag saatan fa saa mel ni def leen di wax ne saatan li rabbika wa saatan li nafsik saa boobu nga xam ne ci ngay nekk ak sa sa sa boroom nag munoo ko nekk lu dul bi nga nekkee ñoñ sa boroom ñi nga xam ne dañoo sedd seen bopp yàlla seeni xarakaat ak seeni sakanaat ñu di ci taamu lu dëppoog suñ ngërëmal ngërmandel boroom te ñooñu ñooy ahlullahi wa xaasatuhu te ñooy ahlul quran te ñooñu ñëpp ñooñu jataay bi ëmb tey kon ñooñ kaarang dañ leen di nuyu di leen ziyaara waaye dañ leen di ndokkeel beneen yoon ci jotaayi yàlla ji nga xam ne moom lañ fas tey fii waaye di teewlu nag fi jamono toll te Cheikh Habib doon ko junju léegi ñu toll ci comme ni ma ko waxee ngaan sayer barki demb fi bàyyi doon waxee ne xarajtu wa axwaalul bilaadi takaddarat ila man yusaffiha min addiqi yuxriju yaquluuna laa taxruj bi dal aami innahum yasudduuna an dal bayti wal amru muzciju fa qultu mata anxuu li taaha tafattaxat masaaricu abwaabi almunaa wa utawaju kadalika in tawaftu bilbayti saa'ilan tafattaxa baabun laa yuraa bacdu yurtaju ma ne del del àddina del siwaat na fi bàyyi doon waxee ne dama génn di dem màkka fekk mbiri àddina bi mu ngi tollu ci nëx-nëx kon situation àddina bi del siwaat na ci nëx-nëx googu ila haddin ma ci ñi dégg loolu ndax am na ñoo xam ne lii nëxal seen seen jamono moo ñu seetlu wàññeeku seen digganteeg seen borom waaye du mbiri jamono yi ngeen xam waaye bu ñu waxee làmmiñi am may dañuy teewlu loolu rawatina bu dawee ci làmmiñu saaxibul waqti wa miftaaxi nasri wa muzilil maqti radiyallahu an mu ne may génn di dem makka ñu ne ma bul génn at mi ndax xal nañ laa aaye sax kaaba gi xal nañoo tëj kaaba gi dox sa digganteeg li nga bëgg mu ne mbir mi nekk lu ma déranger lool ma ne leen xanaa xamu leen ne waxtu ma génne ne maa ngi jem màkka mbooleem abwaabul muna defay ubbeeku mbooleem bunti càkkuteef yi ak mëbét yi dafay ubbeeku te yàlla def ciy teg sax ràngal mbaxanaay buur pour ma fes ci jaamam yi mu tiitaroo ma malaayikaam yi ndax ki ne woon anwil imaarata li bayti xaaliqi bilxajji naiban an il xalaayiqi kooku moo jublu màkka ki ne woon maa ngi am yéene dem aji màkka dundal néegab yàlla bi aj aj goo xam ne maa ngi ciy wuutu mbooleem mbindeef may faral di wax ne ku yàlla baaxewut nga aji loolu doy nala la bichaara bàyyi ne te su ma tawaafee kaaba gi yàlla dana ubbi buntu boo xam ne ba pencam yàlla buntu boobu dootul ti dootul tëju ma ne ñu ngi teewlu xaalu Cheikh Ibrahim boobu fi addina bi toll tey ñuy wax ne ahwaalul bilaadi takaddarat waaye ñu ngi toog ci jotaay yi koo xam ne yu saf fiiha waaye min addiqi yuxriju yal nañu ko yàlla defal cheikh ibrahim doon ñaan mu ne wa najjina min kulli bala'in wa riban wa taacuunin wa wa waba ci ñaanam yu sell yu mag yooyu mu ko daan ñaan ci minbaram bi ajjuma ju jot mu ne yal nag ñu musal yow yàlla ci bépp balaa yal na ñu musal ci bépp taacuun mooy mbas waaye yal nag ñu musal ci bépp waba te moom mooy jàngoro ju mën a doon ma ne ñaan boobu itam suñu ruux yi ñu ngi koy teewlu ñu di ko wax ci suñu làmmiñ te biñ koy wax yëg nañ ne dañ koy waxee mbootam Cheikh Ibrahima moom mi jotal bu ko waxee niyaabatan an na xadra bi dana dana dana dana yëngu te xadra bi dana def istijaaba ñuy rafet njortu ne li ñuy ragal yàlla dina ko dàkkal inchaa allahu bi himmati cheikh al islam waaye bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di leen gis waaye di nuyu suma doomu ndey al oustaz Habib mii ma dendal dafay wax rek nii ci man waaye wallahi lu wax ci man rekk moo ne ci moom danaa leen faral di wax benn xadis bi yonent bi ne al mar'u mir'atu axii wax ju yéeme la def na nit ku ne yaay sa seetu moroom te seetu boo taxawee ci kanamam sa bopp nga ci gis jullit bu demee ba toll ci bu xoolee moromam gis boppam ci moom du mën a wax ci moom lu ñaaw looloo tax wax yu rafet yi mu wax ci man rek mooy bi ma dee seetu ci kanamam muy gis boppam ci moom di wax ni mel ci man loolu moo nekk waaye ku baax a ngi nii koo xam ne ba ma demee maax war a def awal saana wi muy sixième ay kayem laa ndax boobu raw nañ ma tuuti ay kayem laa di ko recopier pour dabe li nga xam ne moo marawoon kon boobu moo ma accueillir ba ma demee Misra ci situation bu xaw a difficile ci néegam laa wàcc fajar ba ma njëkk a fanaan Misra mu yóbbu ma ci jàkka ja ma man maa fiy faral di noddu loolu la ma fi yàlla nattoo ma ne ko laaxar wa ndax Cheikh Cheikh Mouhamad Nazira la defar moo ne ma tey nag danga noddu pour waa dëkk bi xam ne am nañ gan am nañu bari ci dëkk boobu ñoo xam ne noddu boobu ma noddu ci fajar googu ci lañ jaaree xammate lool ci mbaaxam la ak yaatalam ñu ngi koy tatagal di ko dal di rafetlu mboolem kàddu yim fii jibal association jàngalekati alquraan yi duma leen rënk dama leen di nuyu léegi dama leen di ziyaara léegi ndax bu ngeen ñëwee ci jotaayi Cheikh Ibrahima ne yéenay ñiy saytu alquraanul karim te Cheikh Ibrahima mel ni mel ci alquraanul karim bu ñu yeboo ne leen yéenay borom jotaay bi kon ñu ngi leen di dalal di leen tatagal di leen yaatal ci jotaayi koo xam ne man de li ma gëm moo di ne amul kum fonkee ni mu fonkee koo xam ne mi ngi saytu alquranul karim di ko jàngale di ko def di ci def ay guddeem ak ay bëccëg bëccëkam ñu war a waxtaanee benn tomb ci école am bu rëy boobu ci école am boobu nga xam ne école nationale la waaye école internationale la école am boobu nga xam ne école la ca Kaolack waaye école la ca Koosi école la ca Tayba waaye école la ci mboolem biqaa'il ardi ndax nee na taqaadafahu l ajwaau sharqan wa maghriban yubiinu l huda ficlan wa qaalan wa xaalan nee na jawwi addina bi jaww yi ñu may sànnante penku ak soowu may leeral njub ak bi ci wax sallallahu alayhi wa di leeral njubam gi ci jëf di leeral njubam gi ci xaal leeral googu mu doon leeral njubu yonent bi sallallahu alayhi wa ci buntu bi mu ko doon jaaree mooy suñ tomb tey te mooy at tarbiya fi madrasati cheikh Ibrahim Niass wala nga ne at tarbiya ruuxiya fi madrasati cheikh Ibrahim Niass pour mu gën a spécial yar ci méthode bi nga xam ne moom lañ koy jaaree ci école Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Ibrahim Niass moomu suñ tuddee turam ci weeru rajab wax dëgg yàlla danañu fàttali Tayba danañu fàttali matlau shamsil garb danañu fàttali fenkuwaay jantab soowu àddina bi bi nga xam ne moom la ibnu arabi doon junju ci anqaaul maghrib fi xatmil awliya wa shamsil maghrib waaye moom la cheikh sayidi wa mawlaaya cheikh ahmad attijaani doon wax ne taati faydatun ala ashaabi xatta yadxula annaasu fi tariqatina afwaajan afwaajan moom la cheykhaani waxoon ne ashamsun badat billayli taalicuha sacdu wa ma kaana sha'nu shamsi bil layli an tabdu moom la maalaam saani usmaan waxoon ne shamsul huda talaat bi maghribiha fanaaral jaww bil adkaari wal ashwaaqi moom la cheikh abdullah waxoon ne araabiat alxaqaa'iqi inna aqsa maraami fi lxaqaa'iqi an araaki kooku mooy borom rajabul fardi kon du tumuranke mu ñëw nekk alqutbul fard ñu doon ndokkeelante ci bisam ci Tayba barki démb tey ñu ñëw ci Kaarang tantal yonent bi sallallahu alayhi ci buntam kon ñu ngi koy ndokkeel moom di ndokkeel suñ bopp ci moom yar lañ wax ak école Cheikh Ibrahim yar mooy lan yar ci ni ñu ko alquraanul karim tënkalee ci aaya bi nga xam ne rot na ci alqur'aan ay yoon waaye mën nañ jàng bi nekk ci suuratul jumaa huwa alladi baasa fi l ummiyina minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkiihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin nga xam ne mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi ñu ko alqur'aan di présenté dafa wax ne dara taxu koo jóg lu mooy wayu zakkihim te mooy mu yar jullit ñi fexe ba laabal seen bakkan yi ci lépp lu ciy taq te wuuteeg li nga xam ne moom la suñ boroom gërëm noonu lañu ko yàlla présenté wane ne dëggal na ñaanu yonentu yàlla ibrahim cabam ne rabbana wabaas fihim rasulam min anfusihim yatlu alayhimu ayatika wa yuallimuhum alkitaaba wal xikmata wa yuzakkihim tazkiyatu nafs boobu te yàlla wax ci alqur'an ne qad aflaha man zakkaaha ki nga xam ne yàlla dimbale na ko ba mu yar bakkanam boobu sellal ko day kooku texe na loo xam nag ci koo xam ne li ko indi ci àddina bi mooy mu nekk istimda imtidaad muy continuité ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent te li leen taxoon a jóg mooy ommat nit ñi naxwal kamaal ñu jëm ci mat gi nga xam ne moo tax yàlla bind leen am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne niñ taarifee tarbiya moo di ne buluugu cheyi ila kamaalihi cheyan fa cheyan muy taa cheikh ibrahima ci muqaddimaam boobu mu ne waxi zarruq boobu def teral ko ndax loolu tasiis la woon ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la bëgg liggéey ci àddina ci majaalu tarbiya kon bu gisee ku ñuy déglu ci xam-xam ku ñuy liir ay bindam koo xam ne delluwaay la ci xam-xami sharia ak xam-xami xaqiqa mu wax luy niru ne amatul benn majaal benn domaine bu ubbeeku pour tarbiya pour yar faw mu leeral loolu pour lënt lënt boobu jog ci xelu nit ñi balaa Cheikh Ibrahim di addu dafa indi waxu ibnu ajiba ma ne ibnu ajiba sha'nuhu ajib ci taxaquqam ci firi alquraanam ci ay ishaaraatam moom moo jëkk a wax ne lam yaqsudi alxadramiyu inqitaaha ala al abad xaasha alxadramiyu an yataxakkama ala allah wa yujiza qudrat allah wa innama araada anna fi zamanihi muddaciina kathirin fa xaddara ahla zamanihi minhum mu ne imaamul xadrami mënta nekk ne lim jublu ci wax jooju mooy ne tarbiya dafa dagg ba abadan mu ne lim jublu ci wax ji mooy tarbiya am na gàllankoor ci jamono jim dundu mu ne ndax dafa bari ci jamono jim dund moom imaamul hadrami ñoo xam ne ñu ngi oote ne ay yarkat lañ te boo leen seetee ca biir dañ koo niru waaye dowuñu ko dañu koy yëngu dañ ci yëngu matuñu ko te munuñ koo matal itam loolu moo taxoon mu wax wax wax jooju pour bàyyiloo xel ñooñ jamonoom ñenn ñi nga xam ne ñi ngi wax ci tarbiya te ku leen du yàgg ba nga jariñu du yàgg ba nga àgg fi nga jëm ci la nag cheikh ibrahima door a moom ne fa tarbiyatu min allahi xalqihi la tanqatiu abada al abad mu ne tarbiya mooy yar bi bàyyeekoo ci yàlla jëm ci mbindeefam yi boobu xeeti yar du dagg ba abadan fa kaana fi sadri al awali yursilu al anbiyaa bi tarbiyati wal irshaad kama waqaat fa kullama waqaat fatratun rafaaha bi irsaali nabiy ila an xatama risalata bi irsaali xaatimi al anbiyaa wa imaami al mursalina sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa saara yabcasu bi tarbiyati al aarifina ulil idni al xaas fa kullama waqaat fatratun rafaaha bi bacsi waliyin kaamilin murshidin فالفترة فترتان فترة كفر ترفع بإرسال نبي وفترة إسلام bi ببعثة شيخ مرب Cheikh Ibrahima mu ne tarbiya bi jógee ci yàlla jëm ci jaamam yi munul dagg mu ne moo tax yàlla lim baaxoo depuis bu njëkk mooy di yónni ay yonant ñuy taxawee yar mbindeef yi marhaban bi Cheikh Mouhamadul Bachir نجد الشيخ محمد نذير إبراهيم أهلا وسهلا بكم ومرحبا mu ne waxtu fatra ame te mooy diggante boo xam ne dox na ci diggante ñaari yonant bii dem na te bii ñëwagut nit ñi dund ci ngelemaande yàlla dafay gaaw yonni waat beneen yonant pour mu génnee waat nit ci ngelemaande loolu konte continuer yar bi nga xam ne yonant bi ko jiitu ci la ne woon mu ne yàlla ci loolu na nekk ba ni mooy kaste yonant yi collecture seen liggéey ci ñëw yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi yonantu dootul ñëw te fokk tarbiya continue di am mu ne yàlla continue nag waxtu woo xamee ne fatra ñëw na mu yónni ab waliyu waliyu boobu taxawee yar bu waliyu boobu demee mu yónni waat beneen waliyu waliyu boobu taxawee yar mu ne loolu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallama doon junj bi mu ne inna allaha yabaasu li hadihi ummati ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha diinaha loolu danga ko fekk ci sunani abi daawud mu ne yàlla dana yónni ci xeet wi ci téeméeri at yu nekk koo xam ne dafay beesalal xeet wi seen diine kooku mënta doon kenn lu mooy koo xam ne dana yar jaam yi te yar boobu tegu ci naxaju bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak ay ak ak ak ay naataangoom bàyyi ko ak ay saxaabaam ñu bàyyi ko taabiina yi ñooñu bàyyi ko ak man baadahum ila an yarisa allahu arda wa man alayha yar boobu lan mooy soloom ak lan mooy nécessité am nañu wax ne bu fekkee ne bakkanu doom aadama yàlla def ko mooñaale ay melokaan ak ay sifaat ak ay axwaal yoo xam ne bam ca njëkk a wax mooy an nafsu al ammaara bi suu bakkan boobu nga xam ne dafay dig dafay digal boroomam moy def ay ñaawteef gannaaw gi bi loolu amee ci nit ki mu xam ne bakkanam daf koy digal muy def lu ñaaw wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaaratum bissu dafay laaj taxawe dafay laaj yar pour bakkan boobu ame xaalu nafsul lawaama te mooy bakkan boobu nga xam ne dafay yedd boroomam di ko ŋàññ waxtu wu lu ñaaw bakkan boobu di ko ta'niib di ko wax ne ko yow noo mënee def nangam xanaa xooluloo li nga def di ko yeddu fu kenn fekkewut te bakkan boobu du du soreeg li ñuy tuddee damir muy conscience bu jógee ci bakkan boobu dana soxla ñu yar ko ba mu nekk nafsun mutma'inna mooy bakkan bu dal yaa ayyatuha nafsul mutma'inna bu jógee foofu dana laaj ñu yar ko ba mu nekk nafsun raadiya mooy bakkan bu gërëm jëfi yàlla bakken bu gërëm ay atte yàlla bakken bu gërëm ay sharia yi nga xam ne moom la ko suñ borom gàll ci jëf ak tere ak digle ak tere boog waaye dina laaj ñu yar ko itam ba mu egg ci nafsun mardiya muy bakken boo xam ne yàlla mi ko sàkk mujj na koo gërëm ngir taxawaayam ci jaamu borom bi ci daw ay tereem ak sonne ay ndigalam su boobaa nag la bakkan boobu door a apt nag pour dugg ci jaami yàlla yi yàlla ne fad xuli fii ibaadi su duggee ci jaami yàlla yi dëgg-dëgg nag ci lay mën a egg nag ci wad xuli jannati mu dugg ci aljanna yi suñu boroom bi aljanna jooju nga xam ne cheikh ibrahima wax na ne balaa neex nga dugg ci aljanna jooju te yaa ngi dox di sol ay basin ki ay leneen di doxi say soxla yi di liggéey di wàcc te yaa ngi ci biir aljanna jooju wa adxulu jannati naimi walam amut bi yumni habibi daakumu gaayatu niam moo tax yonente yépp seen mission moo doon yar doom aadama yi boo gisee yonente yàlla ibrahim mi sayidul aarifin alxalil di qutbul muwahidin ci yoon boobu la soobu bi mu naan wa qaala inni zaahibun ila rabbi sa yahdiin man de maa ngi nii doggu naa soobu naa yoon bu jëm ci suma borom te am naa yaakaar ne dana doon ki may orienté ba ma egg ci li ma bëgg yonentu yàlla luut moom ci la soobu woon bi mu naan fa aamana lahu luutun wa qaala inni muhaajirun ila rabbi innahu huwa al azizu al bi yonentu yàlla luut gëmee yonent yàlla Ibrahima tënku ci yoon bi mu rëdd mu man maa ngi nii di gàddaay jëm ci suma boroom moom mi not ci ay njëf ay ay ay ndigalam ak i waaye xereñ ci ay njëfteefam ci yoon boobu la yonent yàlla Muusa soobu woon bi yàlla di wax ne wa lamma tawajjaha tilqaa madyana qaala asa rabbi an yahdiyani sawa as sabil ba mu jubloo walli madiyan mi ngi wax naan maa ngi yaakaar suma boroom teg ma ci yoon wu jub yoon woo xam ne danaa ci mën a tegu ba dem ci suma boroom moo tax yonent yàlla Muusa boroom xam-xam yi dañuy wax ne ñetti xeeti yar yi am yépp boo seetloo dund yonent yàlla Muusa bi def ci leer naññ ñetti xeeti yar yi mooy at tarbiyal badaniya te mooy yar jëmm ji a tarbiyal axlaaqiya mooy yar jikko ji a tarbiyal imaaniya mooy yar ruuxu ji te ñett yi ay maraaxil la ay étape yoo xam ne boo seetloo dund yonent yàlla Muusa def ci jaar mu ne mi ngi jëlee tarbiya badaniya ci kër ci kër firawna ndax firawna moo ko ne alam nu rabbika fiina walidan wa labista fiina min umurika sinin xanaa du man firawna man maa la yar ba ngay ndaw nga toog suma kër ay at mu ngi ko bëgg a wax ne maa la doon leyal di la jox ngay naan di la oddu di la aar ba nga màgg tey ba mën a doon waxambaane bu tol ni man tey ngay jóg naan yàlla la yonni ci man liñ ciy tegtaloo rek mooy li liy tudd ak tarbiyal badaniya te mooy li war wayjur bu nekk ci doom bu juddoo nga sonne lekkam ak naanam ak wér yaramam pour yaram bi wér loolu yonentu yàlla Muusa mu ngi ko defee kër Firawna ak li muy doon doon noonu suñ boroom tarbiya bi nga xam ne mooy tarbiya ya yonent yàlla Muusa mu ko defee Madiyan ci loxo yonent yàlla Shuayb bi nga xam ne comme ni ngeen ko xamee ci tënk bi mu fekkee ñaari doomam yu jigéen yi di root ci teen ba mu ne nit di root ñu taxaw ñoom rootuñu mu ne leen lu leen teree root ñu ne ñun day la la la nasqi xata yusdira wa abuna cheikhun kabir munu ñooroot lu dul nit ñi ñooroot ba noppi ndax xëy na ay jigéen lañ munuñu rëj-rëj loo góor ñi wala suñu afaaf mayuñu ko wa abuna cheikhun kabir te suñu baay moom màggat la moo xam ne mënatul liggéey liggéey bi ñun la am comme ay doom yu jigéen ñoo ko ci uutu borom ishaara yi nee nañ wa abuna cheikhun kabir dañ koy wax ne ko suñ baay sëriñ bu mag la bu man a yar boobu ñu ngi koy oo pour mu nekk seen taalibe baay parce que xam nañ ne waxambaane la boo xam ne jikko ji ne ci moom bu àndeeg seen baay dana egg ci njolloxtani yar moo tax boroom xam-xam yi wax ne tarbiya axlaaqiya yonent yàlla Muusa mu ngi ko defee ci loxool euh, bu yàlla bu mag boobu di yonent yàlla Shuayb a tarbiya al nag mu ko defee fi buqaatil mubaaraka ci ni ko suuratu taaha nettale ak saar yu bari bi mu demee ci tuuru siina yàlla ne ko faxlana alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa ba aaya yi jeex wa ma tilka bi yaminika ya muusa qaala hiya asaaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ganami wax waxal te wóor ma ne yër ngeen walla dégg ngeen ishaaraat yi bàyyi firee wax yooyu pour ngeen xam ne tarbiya imaaniya la ko yàlla doon tarbiya pour folliloo ko mbindeef mu jàndoog borom mbindeef yi moo taxoon mu ne ko alqi asaaka sànnil yat woowu yat woowu mu sànni mooy sànni na lépp lu du loon yàlla mu daal jàpp ci boromam mu ne ko innani ana allahu la ilaha illa ana faabudni wa aqimi salata li dikri comme ci tënk yar tarbiya imaaniya boobu mu ko defee foofu waaye mi ngi jëlee aadaabu suxba nag mooy teggini àndoo ci yàlla te yaakaar naa daaw moom lañ doon waxtaane teggin yi ci war loolu mu ngi ko jëlee ci Abdullahi Salih Xadir keroog bam sàkkoo ànd moom ne ko qaala Muusa hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ullimta rushda ndax duma duma la topp ndax du ma ànd ak yow boobu xadir salaam lay waxal moom yonente yàlla Muusa gannaaw bi mu fi ñu wax yépp ngir nga jàngal ma ci li la yàlla xamal ak njug ñu ne booba nag mi ngi bëgg a jàng aadaabu suxbati mu ne ko innaka lan tastatia maaya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra nan ngay àndeeg man te maa ngi nar feeñal ay axwaal yoo xam ne yu jafe supporté la yu jafe muñ la te fekk xamuloo li muy tekki xam naa ne doo ko nangu mu ne ko ba tey bëgg naa dinaa jéem a muñ mu ne ko soo àndeeg man nag fala tasalni an cheyin xatta uhdisa laka minhu dikra ci ànd bu sell boobu nga xam ne ci leçon ñetti leçon yu am solo yooyu mu jàngale mu jàngal yonantu yàlla Muusa te yonent yàlla muhammad bi mu ko jàngalee ba pare ne yellant woon suma mbokk mi Muusa muñ ndax ñu jàng lu baree bari ci xadir alayhi salaam yow nag soo àndeeg tey sëriñ bu mat sëriñ ñetti leçon yooyu doo ko génn waaye ci biir ñetti leçon yooyu nag danga dem penkoog sowu ci suluk ci sayru fillahi tabaraka wa taala comme ni ko cheikh ibrahima waxee woon man zaqaha yasiru sayral abadi yajnil maarifa bi faydi madadi waaye lépp dafay tënku ci point yooyu nga xam ne moom lañ junj ci aaya jooju ci aaya yooyu saxaaba yi comme waxal naa la kon yonant ci tënk nan lañ meloon ak tarbiya même yonant yàlla ismaila walla balaa loolu yonant yàlla yuusufa gis ngeen fi mu jaar ci maraaxil yooyu lépp tarbiya la woon gis ngeen yonant yàlla ismaila fi mu jaar bim bi ko bi yàlla bi bi bi papaam bi ko papaam déposé màkk ak yaayam mu dem ba màgg ba samp kër ba papa ji ñëw di ko nemmeeku di jox ay leçon soxnaam yi ñëw di ko ko jox yooyu yëpp ay ishaaraat la yoo xam ne ci buntu tarbiya lañ taxawoon ci yoonam lañ soobu woon yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci borom xam-xam yi analyser siira nga xam ne duñ yem ci nettali axbaar yi waaye dañ koy jéem a analyser jéem koo xootal wane nañ ne ñeen fukki at yi yonent bi toog alquran wàccut ci moom ñeen fukki at yooyu yëpp ci tarbiya la nekk ñeen fukki at yëpp ci tarbiya ilaahiya rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ba tax na boroom xam-xam yi wax nañ ne yar moo war a gën a yaatu liggéey maanaam booy yar nit di ko former pour mu liggéey benn mission diir bi nga koy yar moo war a gën a yaatu diir bi nga koy liggéeyloo xool leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeen fukki at ci yar ak ñaar fukki at ak ñett ci mission loolu dafay wone ne yar dafa war a rafet yar dañ ci war a tarkiis dañ ci war a concentré wu ba nit ki yëwén su boobaa buy def ata mu doon ata an ilm mën a doon ata buy jariñ mën a doon ata boo xam ne ku ko xool ba ci biir da nga gis ne imtidaad la lil hadi nabawi sallallahu alayhi wa sallam ni Cheikh Ibrahima nara présenté léegi moom naka la yare foog naa ñeent fukki at yi ci lan la yàlla yar yonent bi loolu du jar ma wax leen ko ku xam dara ci siira xoolal maraaxil yi yonent bi jaar balaa iqra di wàcc marxala bu ci nekk rek mat na conférence yi boppam ba ngeen xool yan duruus lañ ci istixlaase ci nan la yàlla di jéem di yare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo waraloon addabani rabbi fa ahsana taadibi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bim noppee ci loolu ci la yar saxaabaam yi kon yar nañ ko ñeen fukki at mu door a commencé di yar saxaabaam yi yar leen Makka ñu dem Medina mu yar leen jógut ci di leen yar ba ni muy tàggook ñoom ba abu hurayrata wax ne keroog bi mu génnee diina rek ku nekk ci ñun yëg nga ci sa xol bi ne am na énergie bu doon dund ci sa biir xol bi énergie boobu bu doon batterie la tey batiri ba commencé nay manqué ay baar te li ko waral du dara lu mooy jëmmi yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa moom lañ tàggool ci zahir te fekk ci baatin mooy sirrul wujudi mi nga xam ne dara du yëngulu dul bi mu jaare ci moom yar boobu lan mooy relation ak ak xam-xam moo tax Cheikh Ibrahima ne woon al ilmu huwa al imaam xam-xam mooy base bi mooy ilimaan bi bala ngaa jëf xam-xam moo war a jiitu bala ngaa wax itam xam-xam moom moo war a jiitu loolu nag dafay feeñ ci aaya biñ jàng ci suuratul jumaa huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim moo njëkk wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa yuzakkihim mu di leen yar di sellal seen bakkan yi bañ sell mu yar leen doora nag sotti xam-xam ci ñoom te loolu moo ñu dal tey ci suñu réew yu bëree bëri biñ tàggalee tarbiya ak taalim ba nga xam ne léegi dafa mel ni dañuy sonne taalim di jàngale mais tarbiya bi dañ ko xaw a desal gannaaw te booy jàngal nit ki ay feem ay xeeti xam-xam te jàngaluloo ko yar amaan na mu dem ba jëfandikoo xam-xam boobu ci lu koy ci lu koy lor wala sax mu loraale moroomam te loolu addina bi mu ngi ciy jànkonteel lu bari lu jar tawax mbokk yi lii moo taxoon sufiyanke yi seen école nekk école boo xam ne dafa baase ci yar te Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nekk kenn ci ñoom moo tax ñu bëgg leen a wax Cheikh Ibrahim ak yarboobu boobu naka la meloon sufyanke yi wax ne ishaara bi am ci aaya bi yàlla di wax ne wa in taasartum fa sa turdiu lahu uxra li muy tekki mooy soo demee ba sa bakkan bi tëla tëla ba mënuloo ko yaral sa bopp fa sa turdiu lahu uxra jëlal sa bakken boobu nga jébbal ko keneen ku ko mën a yar ndéem mu yaru manta ñàkk ndax wax naa leen ne yar nécessité la ci doomu aadama ndax qad aflaha man man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha boroom xam-xam yi ne man araada mujahadata nafsihi fal yulqiha ila cheikhi tarbiyati képp koo xam ne bëgg ngaa xeex ak sa bakkan ba mu yaru noot ko ba dootu la digal lu wuteeg li suñ borom gërëm nang ko jël jébbal ko sëriñ sëriñ boobu moo lay yar wax nañ ne inna tarbiyata saxiixata hiya alladi taani walla tuuna bi qalbil insaan yar dëgg-dëgg mooy yar bi nga xam ne li ko itteel mooy xolab doom aadama bi te xolab doom adama boobu nag moo doon ittee Cheikh Ibrahim mooy domaine mission bi bi mu ne waalam anni walillahi alhamdu laysa li shughulun illa fi islaahi qulubi ashaabi cheikhi tijaani xatta law kaana allahu azina li fi tasarrufi la rafa'tu himmati an tasarrufi fi gayri islaahi alqulub yàlla daf ma may awma benn itte lu dul defar xoli taalibe cheikh tijaani yi ba su ma yàlla joxoon tasarruf te mooy ma amee woon maqaamam kun fa yakun du ma ko jëfandikoo lu dul ci luy defar xol te wax na ni qad xassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi yàlla may na ma xam-xam may na ma may tasarruf ci jaamam yi ci mbindeefam yi ba lu ma nekkal mu nekk waaye damaa xam ne cërob suñ borom la ma delloo ko ko taadduban mu def ma may xaritam looloo ma may itam maa qattu ubtu xaa'iban min rabbi bal kullu maa ubtu shakartu aw bi mosuma dellu ci suma borom di ko ñaan lu dul ne gërëm naa dellu bi ma dellu ci moom maanaam du ma dellu si loxoy neen bu ñu naan diwu diw borom na am mu am Cheikh mu ne am naa kun fayakun ñi amul dégg dañu naan sëriñ si daal dañu jël ceru yàlla bi rek di ko ceroo ndax kun fayakun ceru yàlla la waaye kun fayakun lan la lan la wuuteeg ud'uuni astajib lakum ku tol ni yàlla ne ñaan leen ma ma may leen Oustaz Barham Diop rahimahullah mu ne yàlla nim tabee nim barilee nim amee sañ-sañ nim baaxee toog woote ne ñaan leen ma ma may leen te xam nañ ne liñ koy ñaan am na ko te baax na mën na ko maye ba far sax woote nañ ko ko ñaan soo ko ñaanee te mayu la nekkatul ci moom xanaa ci yow la mën a doon la tax mayu la ci yow la mais du ci moom mu ne boo demee ba ñaan ba tolloog yàlla ci loo ko ñaan mu may la ko loolu loolu kay loolu kay mooy borom moy na am mu am rek koo xam ne yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen te yow tollu nga ci maqaama boo xam ne juboo nga ak sa boroom ba yàlla du delloo sa ñaan di yàlla sax du delloo ñaanu kenn waaye boo tolloo ci boo ne nekkal boo ne yàlla defal mu def kon kay du yaa jëf waaye ki man di jef mooy mooy jëf ci ci teral la loolu lenn la ci karaama te amrun xaariqun lil aada yujrihi llahu ala yadi waliyin saalihin tayidan aw takriman lahu cheikh ibrahima moomu bi ko taalibeem yi ko gën a xam di présenté ku mel ni Seydi Ali Cissé def ne cheikhu awaanihi fi tarbiyatil muridin jumla boobu rek laa jël ci présentation bu riche bu doy waar boobu nee na mooy sëriñi jamonoom ci yar taalibe yi sëriñi jamonoom la mooy sëriñi jamonoom ci yar taalibe yi Baay Mbay Ñas mos na wax Cheikh Ibrahim ne ko ñu ngi ci jamono joo xam ne ñu bari xamuñu yar kon naka la ñuy yaree ñu bari ñu ngi weddi sax yar kon wane na wane na ne amuñu ko xamuñu ko munuñu ko kon li des mooy yow Cheikh Ibrahim yow rek yow yaay yarkat bi moom la ko cheykhaan yi waxoon ne e, wa in saddat il ashyaaxu abwaaba faydihim la anta min al abwaabi faatixu ma saddu bu fekkee ne sëriñ si dem nañ ba tej seen buntu yi ngir ne mënatuñoo accueillir taalibe yi faj seen aajo yi ci wàllu yar yow yaay kii ubbi sa buntu yow yaay topp bunti ñi tëj seen buntu yi di leen deey loo xam ne danañ sa ñemee tijji seen buntu yi te ku leen jubluñ ñu mën ko satisfaire ci wàllu tarbiya ak leneen moo tax mu ne ko woon fa lil ulama bi ilmikum mumtidaadun bikum saaru ida suilu ajaabu borom xam-xam yi amee nañ imtidaad mooy dolleeku ak yokkute ci sa xam-xam bi yow Cheikh Ibrahima yow yaa tax ñu mujj luñ leen laaj rek ñu tontu. lii la ko Serigne Ali waxee ne bu dee yar taalibe yi boo ci ut Serigne jamono ji mooy Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu suma wax waxi Seydi Ali Cissé la wax na ne man tasannama qunana والصفاء والكمال بالوراثة المحمدية والتربية الأحمدية alxatmiya mu ne Cheikh Ibrahima daal mooy ki egg ci njoloxtanu tedd ga ak sell ak màgg ci ndono goo xam ne mu ngi ko doonee ci yonent bi sallallahu alayhi ak yar boo xam ne yarug ahmadiyatu waaye yarug xatmiyatu la boo xam ne mu ngi koy servir ci buntab katmiyatu taalibeem bi def ko ne di a cheikh mawlaana alxaaji muhammad zeynab mu ne rabbal muridina sunnati asnada al imaamu afaalahu fi kulli maslakin yuraam mu ne ci sunna ak ci alquraanul karim la sëriñ bi di cheikh ibrahima wekk mboolemi jëfam ak i waxam ci mboolem yoon woo xam ne moom lay soobu rek ci alquran ak sunna la ciy soobu wa taalama rabba suyuxan xaadu an nahji an manhaji rachadi summan qaadu mu ne bari na sëriñ soo xam ne cheikh ibrahima yar na leen gannaaw biñ jéngee bàyyi yoonu njub ba ñu teguwaat ci yoonu njub qad jaa bi tarbiyati saxiixa mu ne cheikh ibrahima moom moo indi yar bi wér dëgg min sunanin muhkamatin sari te jëlee ko itam ci ay sunna yoo xam ne yu ñu xarañee yu bir la te mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallama himmatuhu tunhidu xaala man araada ilahahu fashabhu in rumtal muraad mu ne ittey moom Cheikh Ibrahima doy na mu yëkkati ittey képp koo xam ne bëgg na namm na jëm ci boromam kon yow mi nam ma jëm ci sa boroom demal nga ànd ak Cheikh Ibrahima bu waxee def lay yar bu jëfee def lay yar bu jëfut bu waxut xaalam def lay yar xaal boobu sax boo ko mënta géndeeku himmatoom ak xaalam def lay jariñ parce que lam yabqa illa al himmatu wal xaal donte Cheikh Ibrahim def na ci loolu commentaire bi mu ci def waaye toog xaalit dafay des di jëriñ taalibe bu jegee sëriñam te loolu la Ibrahima doon wax bi mooy wax ne am na ñoo xam ne dañoo gëj ci suma loxo moo tax ñu dem ba fàtte sëriñ bi mooy ñëw ko alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah di tatagal sëriñ bi di ko ndokkeel di bégaat ci moom saa su nekk yal na yàlla kontaan ci barke ah ñu ngi delluwaat rek di wax ne xol yëpp ubbeekooti na waaye nag tey ñu ñëpp ñu àndaat xam ni ni yàlla dogalee mbir yi tey ci noonu rek la ñuy dégloo sëriñ bi incha allah kooku benn la bi ci des balaa ñu jox sëriñ bi daañu présenté délégation yi fi teew rek daal di jox sëriñ bi ndax coow moom mënatul mënatul mënatul am incha allah waaw léegi euh, daañu présenté suñu yaay yaa Alima ñëw na ah, kii suñu yaay la di kenn ci soxna Cheikh Mouhamed Nazir. nekkoon nag ñun ci kër ga li ma leen wax saa su nekk waaw euh, taxaw taxawaay bu rafet comme ni ko suñu yaay yëpp doon defee yal na yàlla yàggal sa taxawaay yàlla fay la yiw waaye itam ñu dellu rek bañ guddal ak ñii mu àndal ñëpp muy njaboot gi rek la àndal ak ñi nga xam ne ñoo fi teew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 رمدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قل لو كان رمدادا كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم الفاتحة من قبل أن تتفق ظلالي وفي مستودع حيث يختف الورق محبة البلاد لا بشر أنت من تجول فيها فلست تعترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم ملا طبق حتى توى بيتك المهيمن من هند فلاليا تاتا نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذاك ضياء وفي ونور سبل الرشاد نخترقه اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمهدي أن تعظم حزنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أخلاق أيروم مخلوق ثناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولقى والخاتم لما سبقنا صراط بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ذي مقدار عظيم متى يبدو في داجي بي جبينه يلزم صحيح لجل المتوقع ومن كان ومن ذا يكون كأحمد نظاما للحق يوم كان المهدي أما أغر علي بالنبوة خاتم من الله برهان يرشد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين وزن رشد وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد تخدي به ناقة الإدماء معتجلا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي عطافي أوزنا بردتي ما علم الله من خير ومن كرم إن رسول وسيف يصدع بي مهند من سيوف الله مسعود وأبيض يسر الغمام بوجهي ثمار يتامعي اسمة للأرامل يلوذ بي هلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفاضل دعم دعت النصارى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 واختم لنا بخيرها من لا لنا رب سوى تنيات ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبي الربيع مؤملي عتي شفيعي بمنطق البديعي يا ربنا صل على خير لنا من العلا على السماوات العلا بإذن ربي العلي ربيعي بمرحتي شفيع منتقنا أهلا بشار مولدي شار العلا والسدد شار النبي أحمدي شار الربيع الولي عاتي شفيعي بمنطق البديعي أدخل صبي ربيعي إذ كان كالربيعي للأرض وشفي بكل خاب معضلي أنا ربي بمراتي طبي بمنطقي البديع أبقبها مؤملي الفلاح والسرور شار به سار الدهور موشح بين شهور متوج مكلي أنا ربي بمراتي طبي بمنطقي البديع أبقبها مؤملي أهلا بشار الفرح شار دار الذهاب الترح وفخرنا والمرح شر النبي الأفضل أنا تربي بمراتي طفي بمنطق البديع قبا معملي شار الفاتح إطلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحازقت من مللي أنا تربي بمراتي طفي بمنطق البديع قبا معملي الدار الحاتمي شار النبي القاسمي وفاتح وخاتم وآخر وأولي أنت ربي بمراتي طبي بمنطق البديع أبقي محمد أهلا بشار الناصري لحق شار الأمري بوف الشار الظاهري بكل وصف أكملي أنا ربي بمراتي شبيه بمنطق البديع أبقي محمد بشار الهادي لمن حي حجير الرشاد وقائد نحادي إلى الطريق الأمثلي أن يطر بي بمراتي طبي بمنطق البديع أبقي بعام عملي بشار سيدي لأحمر وأسود من هذا سبق سددي يوم ابتداء لرسلي أن ربي بمراتي طبي بمنطقي البدي أبقي بها وقد كفاك لا أعبى وكلها بقولي أنا لها عند الشداد الوجل أن ربي بمراتي طبي بمنطقي البدي أبقي بها معاملي يا لها من حطة جوابه في الحطة من ربي سل تعطى واشفع لدينا تقبلي أن يعطى ربي بمرات طبي بمنطق البديع قبع معاملي بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين أنا ربي بمراتي قدير من تقي البديع قذا وشر خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزلين أنا ربي بمرحتي شفيعي بمن تقي البديع قذا شر الذي أثاره إله واختاره من حبي خيره عند انقضاء الأجل كان عطى ربي بمرات ضفين بمن تقي البديع أبقي بها محمد الذي مساقات ومن له الحسن فقط عليه جبريل هبات بكل نور المعتلي حياة ربي نمراتي صفي بمنطق البديع أبقي بها محمد من عشر في ويوم آخر وطيب ذلك سحر ونور في الجليل حياة ربي بمنحتي شفي بمنطق البديع أبقي بها محمد أهلا بكل ما ظهر من خارق يلفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي أنا طربي مما تطفي مما تطفي أبقي محمد وما رأت من عجاب أمينة حين النصب سبابة في المقترب بسجدة مبتهلين أنا ربي مما تطفي بمنطق البديع قبل معاملين كما تدل زورو كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدل أن ربي بمرحتي شفيعي بمنطقي البديع وغاضت البحار وجفت النار من أجلي والنار قد طفيت من خجلي أنا تربي مراتي بمنطق البديع أبقي بها معاملي في النكدي لرميا برصدي وعز عام قديم من أجل خير رسلي أنا ربي بمرحتي شفيعي بمن تقي بديعي ورهنة شيطاني جراضي من شاني من أوضح البراني لعظم ما بيبتلي أنا ربي بمرحتي شفيعي بمن تقي بديعي قد من نزول إبطالي بأفضل رجالي بأفضل الليالي ببلد المفضل أنا تربي بمرحتي شفي بمن تقي البدي أبقي بها معاملي يوم العيد ما من زهو من عيدي قد حل بالمولود في محل زحلي يعني التربي بمرات الطبي بمنطق البديع قوام عملي وسابعي الولادة ومات أوساد من وفق ما أراد إله في الأزل أن يطور بمرات طذي بمنطق البديع قبا محمد اليوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جدي لينجلي أن يطور بمرات طذي بمنطق البديع قبا محمد الحمد للأولين الأولين الآخرين فكان زائقنا من الكريم المفضل حياة ربي بمرحتي شفي بمن تقي البديع عقب محمد يوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمي مبجلي حياة ربي بمرحتي شفي بمن تقي البديع عقب محمد أكرم بشار العجمي إبريل شار الكرم الحرمي أكرم بأرض الحرمي مويد خير مسري أنا أطار به بمرات طفي بمنطقي البديع أكرم يوم سارة عشنا واستنار لمن حوى الفخار وغفلة من منزلي أنا طربي بما عبدي شبيب بما تقي البديع قبا محمد شار النسان مولد خير الإنسان قدوتي آل إحسان مكاملين مكملين أنا تربي بمرات طبي بمنطق بدي خبا معملي ختمتي الآلي في عدة الليالي بزينة المعالي كجور المفصلين أنا تربي بمرات طبي بمنطق البدي خبا معملي أنا تربي بمرحة شفاعتي شفيعي بالمنطق البديع أبغي بيا مملي أنا ربي بمنحتي شفيعي بمنطق البديع قبا مملي والختم لي للحسنى والجمال للحسنى للمقر الأسنى مع الرفيق الأفضل أنا ربي بمراتي تفي بمنطق البديع قبا مملي وكلنا لنا ولياه وناصرا حفيا لا نغتشي غويا بجاي عبدك العلي على طربي بما عدي شفيع بما تقي البديع محمد وسلم إلى علي أفضل الصلاة ما دام كون الإله من أبد لأزلي على طربي بما عدي شفيع بما تقي البديع محمد وعلي وصحبي وزوجي وحزبي وكل كل آل حبي مع السلام لكملي أنا ربي بمن عدي شفي بمن تقي البريق محمد جايب يا إله في الناظم يا واسمح لقاري يا والذي حضر وأمهم بخفي لطفي وفيمون وعبد ما أبغت الكثير أجيب دعاهم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 alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashraf alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammad ibn abdillah xaatim alambiyaai walmursalin wa ala alihi wa ashaabihi daain wa man tabia bi ihsaanihim ila yawm ddin wa radiallahu an qutbul maktum mawlana abil abbas sayidi ahmad tijaani wa an saa'iri xulafaa'ihi wa ala rasihim cheikh alislam wa saadatul anaam mawlana cheikh ibrahim Niass radiallahu taala anhu wa nafaatana bi barakaati amin mbokki lislaam ñi ngi leen di nuyu nuyooyu lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyoo bi jógee ci xalifatu Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh xalifatu Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmad Tidiane ak mbooleem ay ay kàngamam ma ñëw fekk fii seete si kawe si nga xam ne ñi ngi jiit ñëw ci njiital Cheikh Ibrahim Mouhamed Nazir Ibrahim Niass ak Cheikh Ibrahim Mouhamed Nourou Ibrahim Niass ak mboolem ñi nga xam ne ñooy seen rakk ak ñoo nekk ci ak seen ak seen i saaba ak seen soppe di leen ndok nuyul benn yoon di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di leen wax ne guddi gi dañ ko jàggale yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi loolu duñ ci jóg mukk la àddina lu tuuti li lu bëri la lu bëri li lu bëri la ñu bàyyi daana wax ci gàmmu ne mu ne yaa ngi tagg yonent bi soo commencé rek feeboo nga bàyyi xam ne lépp loo wax rek la nga lépp loo loo la nga noppi moo ëpp kon nag kooku mooy sangi sangi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi nga xam ne moom ak xeetam ñoom ñooy gën ci xeet yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas kooku mooy suñ sang mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne moo fi nekkoon yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut te bu fi lépp jógee yàlla joomi ma fi des mu jël feeñ boobu feeñut ndax amul ku ko seede mu daal di feeñaat beneen tëjëli tëjëli boobu ci jëmmi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee ko ci boppam def ko muy boppam te mu mu mu muy muy lu am te mas ñàkk ndax ma nga soqee ko ca ka nga xam ne ak ñàkk masu koo jiitu kooku mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi suñ dalee guddi yëpp suñ ko suñ ko boole woon di ko waxee te mën nañoo wax ngëneelam yëpp waaye nag du tere ñu dajee loo xam ne mënoo def lépp du tax nga bàyyi lépp waaye da cee def lu tuuti tuuti te bi nga xam ne mooy tehni abi alxaaji Abdoulaye Niass way jur Mawlana Cheikh Ibrahim moo ko tànn ci waykat yu bari yoo xam ne tagg nañ yonent bi dalee ko ca Hassan ibnu Sabit dalee ko ca baayam Abu taalib ak ñëpp képp koo xam ne wax nga ay wax yu rafet ñu tànn ko def ko ci kii kon suñ ko dalee ci commencement ba ci fin bi rek wax nañ mbooleem jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono nag dafay dox dafay dox waaye ki nga xam ne mu mën a nekk ci jamono dëgg mooy koo xam ne nu jamono mel rek mu fekk mu mu fekk mu mu mel ak mel ak moom noonu ñun lañ nekkoon la li waxoon lii yàlla mi nga xam ne ci moom moo def tëjil li ci ñun nga xam ne moo fi nekkoon te du fi jógee te te te feeñam booba moo fi nekkoon ci la defee xaqiqatu muhammadiya lépp ci loolu lañ delloo suñ jëlee woon li mujj yàlla def lii lii yàlla mujj def te jëli bi mujj def nga delloo ko ci fa mu jógoon kooka nga delloo ko ci loolu du dellu lu may yëpp dellu ci xaqiqatu muhammadiya booba xaqiqatu muhammadiya yooyu dellu ci jëmm yàlla ji nga xam ne moo moo fi nekk kon nag ñi ngi sant yàlla ndax ndigal dafa dafa topp rek moom moo war maanaam mbooleem li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy jëriñ doomu aadama mooy luñ digale nga nga nga nga topp lu luñ tere nga bàyyi. alxuraan li muy bëri bëri ndigal ak tere rek moo ci nekk sant la te lépp lu la sant sa njëriñ la tere la te lépp lu mu la tere itam sa loraanga la kon nag loolu moo fi nekk di feeñ di feeñ di feeñ waxtu wu nekk di gën a feeñ kon nag suñ amee bisi tey nga xam ne waxtu yi daaw toogoon nañ fi ñaan yàlla yàlla fekkee nañu ko ñu ak ay déwéni jéeg yàlla ñëw fi fekk ñu fi ñu ngi ñaan barke yonentu yàlla Muhammad boobu nga xam ne moom la ñuy liggéeyal moom la Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne muhammadun umdati muhammadun wazari ana tufayluhu wabni musamaahu léppam yonentu yàlla Muhammad la tuddee ko yëppam soo ko jëlee ci ci soo soo soo soo ko defee ci soo jëlee baay ci yonent bi dara def ci waaye soo defee baay ci yonent dara manqué wut kon nag kooku mooy suñ sang bisab tey bi suñ deful dara lu may fàttaliku benn géndeeku rek ca yooya nga xaye moo ko doon def ñu topp ca ñu xam ne kon alladina amanu alquran wax alladina amanu wa tabaatum zuriyatahum bi imanihim alxaqna bihim zuriyatihim wa ma alatna min amalihim min cheyin ñi nga xam ne dañoo gëm-gëm gu mat sëkk ñeneen seeni doom walla seeni seeni njaboot topp seen ganaar ci tànk yu gën a néew tànk yooyu ñu toppoon yàlla dana leen éegal ca maqaamay bàyyi te du wàññi ca lam mu noonu fay bàyyi dara tey dañ daan toog fii kon alquran moo ñu wax ne wa atiyu llaha wa atiyu rasula wa ulil amri minkum ñun nag suñ kilifa mooy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne moom mooy fi taxawal Mawlana Cheikh Ibrahima lu mu wax bàyyee ko wax lu mu tere bàyyee ko tere bisab tey bii seet nañ maslaha am li nga xam ne mooy intere général ci peuple bi ñu ne li gën mooy ñu wàññi daje yi yàlla xam na ne su fekkoon ne yëg nañ ko lu jiitu kon dañ maam dañ koy bàyyi bàyyi bàyyi nihaay waaye nag gannaaw ni ñëpp jóg nañ ba ñëw ñu bañ a delloo seen yaakaar yooyu ci li nga xam ne moo ñu ool moo tax ñu lum tuuti tuuti nañ def tehniya bi nga xam ne mbooleem tagg yi mbooleem tagg yiñ tagg yonent bi sallallahu yàlla dëxëñ na ko ci biir Mawlana Cheikh Ibrahim daa ko defee ubbee yëfam kon nag suñ ñëwee foofu ubbee alquran alxuraan di ndigal li di di di di sharia ba pare ki nga xam ne moom mooy mooy sunna bi itam muy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax mooy mu mu mu lettre bi mu bind mooy alxuraanu karim li ko daree ca baqara ba ci naasi mooy lettre bi ñu yàlla sant lépp lu mu santaane mu tere mu santaane lépp lu mu tere mu tere ko ci ba pare nag yonentu yàlla muhammad dundam bi ña juróom benn fukki at ak ñett yi nga xam ne moom la dund yëpp sharia la moom la doon dox su defee sharia la su santaane tere suñ defee ci kanam mu noppi sax sharia la kooku nag du fi jógee mukk àddina ndax ba mu fa jógee ay xulafaa mu ngi topp ci kawam gannaawam xulafaa yooyu amuñ sikk ne Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne Baye tonn na tariqam ci mbooleem tariqa yi nga xam ne kon xalifa yonent bi la sallallahu alayhi wa waaye moom itam mooy xalifatul xulafaa yi moom mi nga xam ne moom itam mooy xaatimul xatmay ni muy Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi dajee di yàlla lii nga xam ne imtixaan la examen yàlla moo ko def yàlla dafa bëgg wane kàttanam rek li alquran di wax ne ne ya wa zayanat wa zanna ahluha annahum qadiruuna alayha ataaha amruna layla aw nahaaran yàlla mu ne bis boo xamee nit ñi dem nañ ba foog ne ñu ngi ci dayoo mat ba nga xam ne dara manqué leen benn mbindaa kon su tuuti soo xam ne soo xoolee sax ci télescope doo ko gis yàlla andi ko mu jaaxal jaaxase àddina boobu ñu kon kooku su la waxee dara su la ba nga fayee ko bor kooku su la jox ki la jox añ su la diggee reer na sa xel nag xam ne dana jox reer lii nag du dara lu may examen boo xam ne daf ñuy delloo ci yàlla ñu dellu ci yàlla xam ne yàlla rek moo am kattan yàlla rek mooy dogal ku yàlla may nga am ku yàlla mayul kenn mënu la mënu la may lii nii euh, ñi ngi ñaan mu doon examen boo xam ne umma islaam yi dañuy delluwaat ci lislaam parce que fi ne nii nit ñi dem nañ ba fàtte ku leen bindoon fàtte ba kat fàtte dem ba fàtte kattanu yàlla nekk kattanu yàlla sax du asamaan si wala biddi buy daanu suñ kaw waaye mi mindee mindaakoon si gën a tuuti soo xam ne barki démb rek la judd nit ñi xamuñ ko woon lu jiitu loolu muñ tayele li la wan ne moo ëpp doole ñëpp ca réew yi gën a am doole ci la commencé di ñëw ëff rek mu jeex léegi nag mën naa am su ñëwee dina indihaat doole lislaam dina indihaat dellu ca gëm yàlla jafe-jafe yi yëpp dañoo fàtte alquran ak dañoo fàtte sunna yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fàtte yoon yi nga xam ne moom la góor yu baax yi ta rëddoon ñu topp ci gannaawam waaye lii mën nañoo gind ni melax gi mën naa tax ñu gisaat yoon wa te aw ci yoon yàlla ñu yàlla jawal jawal ci na yàlla faj mboolem aajo su fekkee ne virus boobu ñuy wax ca siin su moom moo jóg rek fu mu romb ngelawam rek romb rek ñooñu ñëpp feebar kon nag foo xam ne dañ fay tuddee yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di fa jàng alquran ay mbooloo dajee gàddaay seen nelaw nga dépassé seen xaay te dara waru ko lu may màggal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne foofu itam barke booba ñooñu di nokkiante ñoom itam mën nañoo wàllante wér ba nga xam ne lii du ñu wàññi dara yàlla ñu yàlla taasu ci barke yonentu yàlla Muhammad yàlla nañu yàlla delloo ci li nga xam ne dëgg ñu gis ko mu awal ñu ci yoon woo mu jaar lañ ci yoon woo ñu li nga xam ne du dëgg mu dindi ko yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalim kon defe naa ñu jublu ci euh, joxe jawaayis yi Lo waaw da ngay Cheikh Tidiane. na ñëw ñëwal sëriñ bi ñëwal. Pape Diop. Pape Diop demal bismillah. ak Seyd Mourad Thiam. non bii Diaw la bii Cheikh Tidiane Diaw la boobu nga téye aywa bismillah. non non Baye moom moom boobu. yaay mu ngi noonu sa ginnaaw. Pape Moussa ñëwal. xaaral nee xaaral taxawal xaar mu jaar joxe bee ba pare. ma xool bii ban la. Amad Bitey. ñëwal ñëwal. ana Amad Bitey bii taxawal ba mu pare wala. Omar Touré. mi ngi ma dembaloo bii mooy ma dembaloo ah aywa bii ban la Mbay Jóob Mbay Jóob wala ku ko fi teewal Mbay Jóob wala ku ko fi teewal mm. ak kan ak soxna Xadi Kebe na jege si Xadi Kanji Xadi Kanji soxna Xadi Kanji na ñëw Xadi soxna soxna Xadi Kebe ñëw na Ramatulaay Jóob soxna Ramatulaay Jóob kii kan la maam Sadio Thiam gouvernement bi dafa joxe ndigal mooy président Macky Sall na nañ taxawal mboolem activités yi mu leen man day dama am kilifa soo bàyyi mi ngi ci yoon mi ngi ñëw mun ma leen wax waaw munu ma leen wax déedéet bi nga xamee ne suñ bàyyi ñëwoon nag ñu dem fekk ko ca jotaay ba ca këram fam dal mu ne waa man dégg naa ndigal li bi ma ñëwee fii ci Kaarang laa ko dégg dégg na xalifa bi jox na ndigal porte parole bi nañ dem ñu waxtaan ak mbooloo mi ñaanal leen ku tuuti ci yonent bi salaam su ko defee ñaanal leen parce que lii war rek mooy topp ndigal ñun ndigal lañ doon topp moom te ñoo na topp ndigal kon nañ ko déggee noonu kon nag tey moo fi taxaw taxawaay Mawlana Cheikh Ibrahima kon su fekkee euh, gouvernement bi bëgg na te ñoom ak li ñuy dox ak li gouvernement bi dox yëpp benn la kon def teg sotti la kon dañoo war a déggoo te liñ dégg yëpp pour njariñ pour doomi aadama da ngeen ko déggee kon nañ ko déggee noonu kon autorité yi ñëwoon ci Baye Nourou nañ xam ne Baye da doon xaar baayam jii baayam ji tam li mu doon xaar rek mooy dégg na ndigal dégg na ne li nga xam ne mooy maslaha pour mboolem peuple bi moom ñëwee jëfee na ko waxee na ko kon yaakaar naa ñun bëgg nañ bëggoon nañ tagg suñu yoonu salaa salaam bëgg nañ jëfee itam suñ ndigalu réew ñaar yëpp sëriñ bi def na ko kon sëriñ bi ñu nga jox pour nga ñaan ñaanal mbooloo mi ñaan feebar bi nga xam ne ñu ngi ko dégg ci ànd bi mu lëmbee àdduna bi yàlla na fi jeex te yàlla na fi am te amul sëkk ne boo ñaanee dana am incha allah barakati ko incha allah gàmmal nga leen maye nga tariixa Cheikh Ahmada Tidiane kon delloo nga ñu ci yonant bi delloo ñu Cheikh Ahmad Tidiane waar nga ñu delloo ñu ci Mawlana Cheikh Ibrahim nga ñaan nag léegi ñooñu sëriñ bi ne alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. moom mi nga xam ne moo xeeyoo ñu sant ko ci lu neex ak moom mi nga xam ne moo sant ko ci lu neex sant ko it nag ci lu naqari. yan nañ bokk ci ñi nga xam ne danañ jëriñu ci tëjale bi yàlla def. yan nañ bokk ci ñi nga xam ne danañu jëriñu ci tëjale bi yàlla def. def ko lu may delloo nit ci ci lañ lañ lañ gën. del defut ko lu mooy delloo nit ñi nag ca la gën. ñun biñ biñ gëmee yàlla. ñun suñ gëmee yàlla. topp yonent yàlla Muhammad sallallahu topp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tey ak suba ak démb yëpp benn la ci ñun. tey ak suba ak démb yëpp benn la ci ñun. ndogalam yi lu mu ci dogal rek gërëm nañ. ndogalam yi dañuy wax rek. wa bi jëmee ma jaare ahkaami yi lu mu dogal rek gërëm nañ. ci lu mu ne gërëm nañ lu neex gërëm nañ it nag lu naqari. ngi kilifa Cheikh ñu ngi topp ndigalal suñ kilifa xalifa saahibul fayda Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh xam ne joxe na kàddu ci turu euh, pays Cheikh Ibrahim. mi nga xam ne joxe na kàddu ci turu pays Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. su ko waxoon démb wala mu wax ko ci suba bañ su ko waxoon ñu jogagut. samaan wa taata kon dey li ñuy wax rek dégg nañ topp nañu rek la ñuy wax. waaye nit ñaa ngi nii. waaye nit ñaa ngi nii. bénéfice na ñaari yoon. na ñaari yoon. feebar bii natt la boo xam ñëpp ku nekk xel sa xel dellu na ci yàlla. feebar bii natt la boo xam ne ku nekk tey sa xel dellu na ci yàlla. dajee bii. ba pare dajee bii. barke la boo xam ne. barke la boo xam ne. ndem feebar boobu ca Siin moo mën di wër di di di ku ku ko nokki mu feebar. ndem feebar boobu ca Siin moo dem de wër ba ku ko nokki mu feebar la. kon daje bi ñu daje fii dañuy def. ak jihaad bi nga xam ne moom la ñuy def. yonent bi xare yi pare yi daf ne jógee nañ ci jihaad bu ndaw bi jëm ci jihaad bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba xare ba pare daf ne jógee nañ ci jihaad bu ndaw bi ñu ngi jëm ci bu mag bi. jihaad nafs. mu ne jihaad bi ko gën a rëy mooy jihaad ci sa bakkan. kenn ku nekk su doon seet benn bànneexi bakkanam mënoon naa bañ a ñëw. yan na mucc boo xam ne Sénégal yëpp mën nañ cee muccee. jullit ñëpp mucc ci. jullit ñëpp mën nañ ci muccee hin nag. Afrique yëpp mucc ci. Afrique yëpp mucc ci. yàlla moo bëri moo bëri ay ay yërmande waaye moo bëri ay nattu. yàlla moo bëri ay yërmande waaye moo bari it nag nattu. baay mu ne mu ne mu ne am am yàlla xéewal rek lañ ci attan. baay mu ne yàlla. li ñu xam ci moom xewal rek lañ ci xattan ak jàmmam ji. moo tax bëgguñ ci dara lu may moo tax bëgguñ ci dara lu may xewalam ya ak jàmmam yi. yàlla na saxal loolu. yàlla na saxal loolu. yàlla mi aar Sénégal ba waxtu wii. yàlla na mi yàlla mi aar Sénégal ba wii. yàlla na ko gën a xaar. yàlla na ko gën a xaar yaara bi. yàlla na ko teggi. xay bi su ko neexee mu teggi ko léegi yàlla na ko teggi. ñu ngi jottali ko ci barke borom juddu bi. muy fukki fan ak juróom ci rajab. ci la uy ji boromam. ci la uy ji boromam it nekk. kon loolu neexa nga ci naqaree nga ci. kon loolu xam ngeen ne neexa nga ci naqaree nga ci nag. waaye Baye mu ne li ko war mooy muy fàtte naqar yi di fa di di fàttali ko waaye Baye mu ne jullit li ko war daal mooy muy fàttali ko naqar yi da fàttali ko li ko neex. weer wi kay ci la ñu yàlla may yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. weer wi nag ci la ñu yàlla mayoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu daal di. ci la sosoo ci biir biir jógee ci Abdoulaye ñëw ci Aminatu. ndax ci la sosoo ci biiru ndeyam jógee ci Abdoulahi ñëw ci Aminatu. weer wi ba ca rabi ba ca gàmm ga moom mooy juróom-ñeent. weer wii muy rajab ba ca gàmm moom mooy juróom weer yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam. kon nag loolu kon su baay waxee ca weer yonent bi ne suma weer teeru na. kon bu baay waxee ne suma weer teeru na maa ngi ndokkeel Ibrahima ndax weeram teru na. kon ñu mën koo jox ci ngant loolu. ñu kon ñu mën koo jox ci ngant loolu. xam ne démb mooy tey xam ne démb daal mooy tey rek. yàgg nañoo teral ci weer wi ndax ci la ñuy indi wàccee julli it. yàlla yàgg nañoo teral ci weer wi ndax ci la wàccee julli it nag. yonent yëpp. yonent seen li leen yàlla daan jox. seen li leen yàlla daan jox. ci ay karaama. ci ay karaama. malaaka koy indi wala waasita malaaka koy indi wala mu jaar ci waasita du ñëw ci yonent ba waaye lim jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko daf koo jël yóbbu ko ba mu génn àddina ba mu génn àddina mu dem ba kaw amatul suuf amatul mu dem ba kaw amatul suuf amatul foofa jibril mënu faa àgg keneen mënu faa àgg foofa jibril mënu faa àgg la ko yekki wala mu la mu ko yekki yonent yàlla Moussa rek moo xaw am lu mel noonu. yonent yàlla Moussa rek moo xaw a am lu mel noonu. ba waxee yàlla wan ma wan ma gis la. ba waxee yàlla wan ma ma gis la. mu ne ko mu ne ko mu ne ko dooma gis. mu ne ko doom dooma gis. waaye nag soo xoolee montagne bee su saxee. waaye xoolal montagne boole su saxee palaasam rek. xal nga maa gis. xal nga maa gis. ba montagne ba tojee. ba montagne ba tojee. Moussa njëkk xëm. Moussa njëkk xëm. ba mu ximmele ko. ba mu ximmele ko. xamatu fu mu nekk. xamatu sax fu mu nekk. kaddu ñëw ne ko sumil sa daal yaa ngi ci pay ñëw ne ko sumil say daal ndax yaa ngi ci pay bu tedd bi. loola yàlla doon ko wax waxee. loola yàlla doon ko waxee. ci jabalu tuur gii rek la woon ci ci Misra. ci jabalu tuur Sina bii rek la woon nekk ci Misra. la yàlla wax ak moom ñëpp dégg nañ la yàlla wax ak moom ñëpp dégg nañ ko. mooy mu taraani wala kenn anzur jabal fay mooy doo ma gis waaye xoolal ci doj wi su su saxee palaasam nga gis ma. waaye Mouhamed Ibn Abdullah. waaye Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abdullah. yàlla dafa yónni Jibril mu indi daaba boo xam ne niroowut ak daaba yi. yàlla dafa yónni Jibril mu indi daaba joo xam mu rañaan ba ca kaw. mu rañaan ba ca kaw. romb mboolem yonent yi. romb mboolem yonent yi. romb mboolem asamaan yi. romb mboolem asamaan yi. dem ba kaw amatul dara amatul. dem ba kaw xamatul dara xamatul. mu dem ba jege yàlla ni ni xal ak koccam. mu dem ba jege yàlla ni ak koccam ya. wala lu gën a jege loolu kon. wala lu gën a jege loola nag. bàyyi mu ne kon benn jëmm ñaari jëmm nekkatu lam ko wax. <coughs> lam ko wax. diggante seen diggante rek la. seen diggante rek la. awxa ila abdihi ma awxa. mu wax yu jëm ca jaamam boobu mu yonent yàlla Muhammad lam wax yu jëm ci moom. kooku mooy suñ patron kooku mooy suñ. kooku mooy suñ patron mooy suñ leader mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kooku la ñuy roy ci moom. kooku la ñuy roy ci moom. moom la Mawlana Cheikh Ibrahim. moom la Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. lu tax ñu ñu ñu ñu ñu óolu topp ci gannaawam. lu tax ñu óolu topp ci gannaawam. ñu andil firnde ne fu yonentu tegg tànkam mu teg daf ñoo indil firnde ne fu yonentu tegg tànkam rek mu teg fa tànkam su yonentu taxawee moom dootu dem su yonentu taxawee moom dootu dem demuwaayam waayam sori na kon nag nax-naxi àddina yii kon nag nax-naxi àddina yii mënuñoo yóbbu fenn mënuñoo yóbbu ñun fenn waaye dinañ topp ndigal waaye dinañ topp ndigal li ñu sant ñu def ko li ñu sant ñu def ko. li ñu bàyyi li ñu tere ñu bàyyi. li ñu tere rek ñu bàyyi ko. lu mooy loo xam ne nag yàlla def ñu ko sant keneen aaye ñu. lu mooy loo xam ne nag yàlla daf ñu koo sant keneen aaye ñu ko. loola moom bu boobaa duñ ci topp kenn. noonu la moo Mawlana Cheikh Ibrahima mi doon te noonu la doon def. loolu la bàyyi ci ñun itam. loolu la bàyyi ci ñun itamit. yàlla nag moo ñu wax ne. yàlla nag moo ñu wax ne. mu ne na nga topp sa sa sa sa sa borom. mu ne na topp sa borom. ak sa waliyul amri na nga topp itamit sa borom ndigle yi maanaam buur yi nga xam ne ak président yi. ak suñuy sëriñ. feeg li ñuy sant yàqu suñ diine feeg li ñuy sant yàqu suñ bokk. yàqu suñuy bokk. danañ leen ci uyu. rawatina nag su fekkee ne kàddu gi ndigal li mu ngi jógee ci xalifa. rawatina nag su fekkente ne ndigal li mu ngi bàyyi ko ci xalifa saahibul fayda. kon nag loolu sant yàlla bu baax a baax. kon nag loolu sant yàlla bu baax. yàlla musal. yàlla mi nga xam ne ku musal nga mucc muccee. yal na nañu yàlla musal. nattu bi yal na soppeeku xeewal. nattu bi yal na yàlla soppi ko muy xeewal. boo xam ne ñëpp danañ ko gis. boo xam ne ñëpp danañ ko gis. suñ ko gisee yal nañ bokk ca ñee sant yàlla. yal na Sénégal yëpp mucc. yal na Sénégal yëpp mucc. yal na Afrique yëpp mucc. yal na Afrique yëpp jullit ñi fuñ mën a na a nekk. loo xam ne dafa meloon ni ay géwént léegi dëgg-dëggal la. xëy na loolu rek moo tax yàlla indi lii pour. xëy na loolu rek moo tax yàlla indi lii pour jàngal ñu. lu mat ñeenti fan a ngi kaaba gi kenn waru a ngi ko. wane nañ mojisa ne picc yi ñoom ñu ngi koy. waaye wane nañ mojisa image yi gis ngeen ko picc ya sax ñoom ñu ngi wër Kaaba ga. Baay daan wax ne mboolem njanaaw yi. Baay radiyallahu anhu daf daan wax ne mboolem njanaaw yi. ku feebar sa faju mooy nga wër Kaaba gi. ku feebar sa faju mooy nga wër Kaaba ga wala nga teg ko bët nga tim Kaaba ga rek. Kaaba gi nag ba ko yàlla defee ba tey lañ ko utal kubéer muy koy upp. Kaaba gi nag ba ko yàlla defee ba léegi ren lañ ko huutal kubéer muy ko hupp. ñu di ko tëjee télécommande. ñu di ko tëjee télécommande. loolu yëpp bëgg a gëlëmal nit ñi rek. yëpp bëgg a gëlëmal nit ñi la. waaye ñun du ñu nekk lu may dellu ci yàlla. waaye ñun mënuñoo nekk lu ñu dellu ci yàlla rek. su fekkee eh, virus bii nga xam ne moo jógee Chine. su fekkee coronavirus bii moo nga xam ne moo jógee Chine. tiital ñëpp ba kenn nelawatut. tiital ñëpp ba kenn nelawatut. yàlla suñu bëggoon a xoqatal kon nu muy demee. yàlla suñu bëggoon a xoqatal kon nu muy demee. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah ñun ñu ngi sant yàlla. woykat bi dafa wax ne. woykat bi dafa wax ne. idal inaayatu laaxadatka uyunuha mu ne borom mu ne kii mu ne yàlla. mu ne kattanu yàlla ak ndimbalam. su la xoolee ay bëtam. su la xoolee ay bëtam. tëddal nelaw. tëddal nelaw. lu niru luy raglu sax kóolute. lu niru luy raglu sax kóolute lay doon ci yow. ñun dey xoolu na ñu ne lii koolute lay doon ci ñun. yàlla mën na ko yan na ko yàlla def. ñu ngi gërëm ñëpp. di gërëm suñu ñaari doom yi ak seen rakk yi. di gërëm suñu ñaari doom yi ak seen rakk. Cheikh Ibrahim Mohamed Nazir. Cheikh Cheikh Ibrahim Mouhamad Nourdiin. ñooñu may occasion bi. nga xam ne dajee nañ ci tàntab yonent yàlla nga xam ne dajee nañ ci tàntab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah nokk yi di génnee fii nokk yi di génnee fii kenn ku nekk di ko jël kenn ku nekk di ko jël di jox sa morom da ko jox saafara jàngoro lay def ci ñun yëkkati ko ci ñun lay doon yëkkati ko ci ñun lay doon yàlla mën na loolu yal na ko yàlla def ñu ngi gërëm ñëpp da leen balu xàq salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa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 سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما توقنا صراط الحق ولا دين صراطك المستقيم على هذه حق المقدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaam ala almursalin walhamdulilah ngeen bàyyi ko nag ndànk mu génn ñu bàyyi joxe loxo yi nag ñu bàyyi ko ndànk rek mu génn ngir yàlla Allah Akbar